borom

loolu loolu loolu taliban ngi nii. première jàdd jàddal taliban ngi nii. waaw taliban ngi nii oto bi ngeen di topp sax xam ngeen ko. non baax baax baax na. kër gi bàyyi na tudd waaw. non dañu bëgg a génn boulevard ba. boulevard ba. su ngeen paree wala su ngeen paree. da ngeen jéggi télé bi. boulevard bi waaw moo di boulevard. moo ñu jëlal de. ci commencé ba léegi ñoom policier yi. yow si ñëpp génn dëkk bi de. non non. grand jëmuñu foofu grand. bu ñu guddee ñun boulevard la ñu jëm. voilà boulevard la ñu jëm. man dëkkuma. waaw kon bu ma ne foofu fii la ñu dëkk. Eh, nii la ñu war a def fi mu toll nii yéen a ngi wëriwaat encore di demaat ci gendarme nii la ñu waroon def. nii da wax leen ñu def nii. fii boo demaatee xoolal da ngay génniwaat rond-point yi dem na bi ngay jëm nii la ñu war a def. non non non non. la nii la eh nii la nii la nii la waaw ñun waruñu ko woon def tey wér. dem ci dem ci kër Serigne. ñu bokk ci woon tey. wala jëm na. maanaam Cheikh Thioro moo nekk ci biir kii de. bokk ci woon tey. siyaare. léegi nag léegi

Arrière, arrière arrière arrière Ngi noonu on est arrivé On est arrivé à destination. On est arrivé à destination. fii la ñu bëggoon a tere aksi aksi nañ fii aksi nañ fii président Ousmane Sonko fii ci Baye Fall gi mi ci bayalu chantier Baye Fall yi sur invitation di xalif de Baye mi ngi noonu président agsi na président agsi na fi ñu ko doon xaar mu waroon a ñëw fii fii ci Baye Fall gi barkeelu gis nga jërëjëfe borom Touba waroon a barkeelu fi nga xamante ne moom moo di Baye Fall gi chantier bi stade bi newoon mu ñëw fii waxoon ko sànq promettre ko sànq ki nga xamante ne moom moo di la xalif de Baye Fall mu ni ko balaa may génn mbake dinaa doxantu ba ak si ci seen liggéey bi ma xool lu ma ci mën a def waaye itam ma woo ci patriote Sénégal yëpp ndax projet la boo xamante ne projet wu askan bi la mi ngi noonu on est bien arrivé malgré intimidation yi malgré agression yi malgré charge yu répété yi président Ousmane Sonko le Baye du Sénégal Baye Fall askan bi mi ngi noonu mi ngi noonu nee nañ leen match amical du am benn match officiel mooy am mi ngi noonu mi ngi noonu askan baa ñoom ñoo dajale ko seen bopp malgré lacrymogène malgré charge yi malgré xeer yi malgré sabotage yi si nañ fi nga xamante ne moo newoon la destination du président Ousmane Sonko ndax sànq ci suba bi mu demee ba agsi ak fi nga xamante ne moom mooy ci xalif Baye Fall mu ñaanoon ko mu ñëw mu xool fii liggéey bi nu mu dee mu ni ko balaa may génn Mbàkke dinaa fi ñëw incha allah mi ngi nii ñoo ngi soog a agsi dañoo bënn yoon dem waaw aujourd'hui le peuple sénégalais l'Afrique et l'international ñoom toog nañ gis li xew Sénégal gis li xew Sénégal mbirum jaay doole waaye waaye bés ngi ñëw président ngi noonu président ngi noonu di génn mi ngi noonu mi ngi noonu président ngi noonu mi ngi noonu mi ngi clean. waaw président yàlla sa fan bu dugal. jàmbaar la jàmbaar jàmbaar dëgg mooy yow. Ousmane Sonko yaay jàmbaar jàmbaar la. doy na. yaa ngi

Come on.

liggéey mooy fii mais ñu ngi liggéey sëñ bi man di ñoom laa parce que ñoom sëñ ñoom sëñ bi ñoom wàcc Bay bay bay